très bien mu doon lo am solo seigne Saliou alors bu ñu ñëwaatee ci li xew ci ci Mbàkke est-ce que nekkul ne motif euh, yi préfet bi joxe euh, comme euh, li waral ñu interdire boobu lekk meeting moo xaw a léger ba emporter xëy na sympathisants yi ak ñi nga xam ne ñoo di partisans yi bokk kuréel boobu di Pastef. Mohamed soo bëggee dégg dëgg. mooy que le préfet a fait faux et usage de faux. Mhm. xam lu gën a grave mooy. une autorité administrative soo demee ba doo wax dëgg yow ci arrêté yi ngay jël di invoquer ay lois yoo xam ne yow leer na amul ça c'est extrêmement grave et je crois que yéen opposition bi yéen war ngeen am devoir ngeen dem ngeen traduire ko devant les tribunaux pour faux et usage de faux parce que soo xoolee Mohamed lu mu wax dans dans dans son arrêté mu ne La déclaration fait connaître les prénoms, noms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans la région. Lola, tu as donné 96 le code pénal du article 96 code pénal la déclaration sera faite à l'autorité administrative chargée du maintien de l'ordre sur le territoire de laquelle la manifestation doit avoir lieu trois jours francs trois jours francs au moins et quinze jours francs plus avant la date de manifestation. Et cette loi de 96, euh, de, 74, article 96 euh, du Code pénal, est complétée par l'article 10 de, la loi de 1978 qui organise bien sûr les réunions publiques. Toutefois, l'autorité responsable due à l'ordre public doit être informée par écrit de l'heure tenue au moins trois jours francs avant le moment où elle débute. Il lui est indiqué la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que les prénoms, nos domiciles de l'un. De l'un de l'un, et je précise, j'insiste, de l'un des organisateurs domiciliés dans la circonscription. lii la loi 78 bi nga xamante ne compléter la loi de 74 ba pare am sax ay dispositions yoo xam daf abrogé. Mhm. quand un préfet de cette nature ment à ce niveau là c'est extrêmement grave. parce que aussi man mënuma d'accord accord ngay bind yow ci arrêté loo xam yow loolu lañ dëgg ba pare ngay invoquer l'article, article un article du code pénal te mu leer yow li nga wax ci code pénal bi dara du ci dëgg mais man c'est ça qui me révolte et puis li ci gëna graw imagine par exemple lui. en tant que préfet bu nit ñëwé déposer ci yow ben demande déposer ko à temps yow nga xamné yow yow nga l'administrateur moi je crois que la finalité c'est de permettre aux citoyens de jouir de sa liberté de ses libertés Sauf qu'il y a des erreur mais tu leur signales ça mm-hmm loolu mooy loolu mooy loolu leen war. Mhm. ngeen leen lii kat fii il faut ngeen defaraat ko pour vraiment pour euh, form un formalisme ngeen defaraat ko jox delluwaat leen ko loolu moo tax ñu ne trois jours francs yi. exception la war a doon effectivement. au moins il fallait le faire. tu as raison. mais il ne l'a pas fait. léegi nag et lu gën a grave mooy tu sors un arrêté le 7 tu attends le 9 pour génne ko. ça veut dire que yow. deux jours après yow yow bañ nga sax ñoom bu ñuy def référé au niveau de la cour suprême que sax duñu am temps pour mën a dem au niveau de la cour suprême tu penses que ça c'est sérieux et un préfet qui fait, qui fait ça. Mais à quelle fin, c'est une salle Mais à quelle fin mmh. Mais la seule fin, c'est quoi C'est aujourd'hui, c'est-à-dire l'administration territoriale et une partie de la magistrature. Il y a un combat politique entre le pouvoir et l'opposition. Un combat politique, c'est un combat politique. li nga xamante ne tey Macky Sall bu ko le ne jàkkaarloo opposition bi sur le terrain politique Vous connaissez nekk loo am nga hmm. mais quand ay magistrats ay préfet ay administrateur civil bëgg a dugg ci combat politique pour se substituer à l'autorité exécutive ça pose problème ñom dañu bëgg dugg ci affaire bi c'est un combat politique gis ñom c'est des administrateurs Les politiciens dañuy dem ils continuent parce que l'administration continue. day continuer politiciens leen di dem ils doivent songer à ça Nous, ku ci nek am dignité même si le ministre de l'intérieur bu leen ko santone dañoo wara bañ le ministre de la justice am na xam bu ko bëggee sant ay magistrats parce que magistrats yi ñoom nen nañ leen ñoom xam kan lañu am ku ñu war a jaamu ils sont sous l'autorité de la loi ils ne sont même pas sous l'autorité du président de la République c'est une institution judiciaire loolu ñoom il faut ñu xam ko mais su fekkee ne tey dañuy jël texte yi di ko manipuler seulement pour servir un régime en place léegi yow opposition bi fu ñu jógee lu ñu def nga ne leen amu leen droit def ko tout à l'heure madame le maire wax na ko ñi nga xamante ne dañu ne dañuy organiser pour def ay vente de carte xamul lu leen wax dans le motif que way day am ay su ay ay nuisance sonore parce que il y a je ne sais pas le centre Gaspard Camara à côté alors que fofa dañ fay deug ay ngenté di fa dëgg ay mariage di fa def ay rapatak lu ne dafay fay am en ah, maintenant quand il s'agit maintenant d'un parti politique ah y a des nuisances sonores kon nak bu yeboon nak yeen opposition ngeen japp ne fofa bu fa kenn organiser parce que aussi loolu moy deug bu fekkee da nga ko tere kenn c'est fini a am jurisprudence bu ngeen amee fulaak fayda foofu kenn dootu fa organiser vous êtes parti au pouvoir lu la neex nga def tu as une immunité bu la neex nga saaga bu la neex nga sàcc bu la neex nga détourner bu la neex nga violer les lois de la République kenn dara du ci ñëw mais vous êtes maintenant dans l'opposition même quand tu respectes la loi ñu dans sa kaw les gosses qu'on a pris à la cité Kër Gorgui où il y avait même trois mineurs de 16 ans tey lañ la doon àtte parce que simplement ils voulaient se rendre au domicile de leur leader policiers arrêtez arrêté nous ñu jàmmaarloo ñoom mhm. Pape qu'est-ce qu'il a fait il a drainé 5000 chômeurs récemment Il a ba faire taxaw lan sous l'œil des gendarmes et je comprends bien sûr les forces de l'ordre parce que aussi nous dañu sous un commandement c'est vrai que c'est des des choses que xamante ni dinañ ko exécuter parce que nous ko ñàkk exécuter mais au fond de ils ne sont même pas d'accord sur ce qui est en train de se passer. d'accord c'est ça, li xew li euh, pour que intention euh, euh, de l'autorité administrative est-ce que waa Pastef mënuñu woon faire une demande. pour tenir un jour. meeting non c'est-à-dire la coupe est pleine. xam nga Mohamed loo gis rek bu fessé day tour gis nga ni je crois que tu wa passer fi ñom fofu lañu tollu parce que tu organises un meeting en bas. déjà lu njëkk a un certain je ne sais même pas comment il s'appelle un marabout qui se dit que aussi il va organiser là-bas le même jour le même jour d'abord provocation banque non. deuxièmement ñu ne wey à 24 heures ñu c'est irrecevable pour quelqu'un boo xamante ni yow constitution moo la may loolu yow tu as organisé une fois à Kermassar. tu veux organiser ailleurs ñu ne la foofu dafa organiser parce que on a l'impression maintenant que le mot d'ordre mooy que opposition bi ñoom organiser ti fenn c'est-à-dire bu leen may jaam fenn au même moment maintenant le président lui il fait ça son tour politique à Thiès avec l'ensemble maintenant de ses de de militants. Mm. ñu permettre ko loolu au même moment. ñu ne keneen aussi tàggatoo tour nga ko jàppee. Ah, non parce que man laa mën jàpp. parce que pour man yéen xam ngeen ne constitution bi mayetu ko en 2024 mu présenté su ñu waxalee dëgg te man loolu laa jàpp. d'accord léegi nag su fekkee ne dafa forcer leen aussi mais man jàpp naa ne ma il est de faire ses adieux léegi nag comme que moom mi ngi toll ci tàggatoo. di mobiliser. na mën a permettre ñi nga xamante ne ñoo bëgg a dugg ci langue gi aussi bu ko remplacer aussi ñoom jure des mêmes droits constitutionnels parce que aussi Mohamed quand j'ai vu les images aujourd'hui sama xol lu tax mu jeex ça m'a renvoyé à 2011 2012. Mm-hmm. je me disais que kii nga xamante ne moo fi nekk moo doon xeex lii ba muy jël nguur gi c'était pour dire que ces images là dootul amati ci dëkk bi te xam lu ko indi woon parce que tout simplement dañ doon jalgati loi yi nga xam ñoo fi nekkoon moom mu wax ne su fi ñëwee danay corriger loolu sénégalais yi jàppale ko ci jàppale ko ci votel ko pour mu ñëw la nga xam moo fi amoon mu dindi ko malheureusement la mu waxoon amul lenn loo xam ne ko ci et ce qui est en train de se passer à Mbacké ça risque de faire tache d'huile tant que maintenant parce que li gën a li gën a grave mooy dès l'instant que affaire bu commencé bu déclenché wu rek c'est fini dans la tête des sénégalais et je crois que président bi war na moytu loolu li gën a métti mooy tu dresses des Sénégalais contre d'autres Sénégalais. Policiers, gendarmerie, c'est nos familles. Il ne faut pas les dresser contre. tey sama yaram dafa daw bi ma gisee boy tok ben benn instant jël ndox di ko jox policiers yi ñuy naan. Hmm? ñuy xeex ba benn instant muy jël ndoxam nii jël di leen ko distribuer ñoom ñuy jël di naan. il aurait pu se dire que mais ñii ay duñu ay civil duma len ko jox. mais daf len jox ñom ñuy jël di nan, pour dire que rek que né Sénégalais yi ben lañ.